الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله سنبوك إمام عبد العزيز aziz ndiaye bu jàkk Sacré-Cœur 3 VDN moo del si tey lundi 8 février 2021 di waxtaan ak yéen mu nekk sunu audio numéro 198 ci sunu jotaay bi passé ah, tàqale woon nañ bu baax ràññee woon nañ bu baax boroom cër yi mu réservataire yi ak asaba yi yi ñuy donn ñan ñoo ci boroom cër joxewoon nañ seen list ñi donn ñan ñoo ci asaba joxewoon nañ seen list ñoom itamit xam nañ tamit fiñ toll nii lan moo leen utale ñu waxoon ne képp koo xam ne am nga droit donn dinañ la jagleel audio yow kenn dinañ la jagleel audio yow dong wax nag naka ngay doonoo wax situa situation yi nga xam ne moom nga mun a jànkoonteel ñu annoncé woon ne tey ak ndimbalu borom bi dinañ fas yéene tàmbali liggéey bi tàmbaliko nag ak jabar naka la jabar mu ne donne naka la jabar di donnoo dañ koy jàngat ci ñetti tomb ñetti tomb lañu indi mbokk yi tomb bu njëkk bi mooy ne jabar nañ xam ne kenn mënu ko dàq ci ci ndono jabar kenn mënu ko dàq ci ndono kenn mënul génne jabar ci ndono jabar ala kulli xaal dafay donn par force kenn mënu ko dàq kenn mënu ko écarter moom itamit du dàqaate jabar du dàq kenn jabar du dàq kenn kon mbokk yi tomb bu njëkk bi nañ ko jàpp tomb bu njëkk bi mooy ne jabar al foog mu donn boroom këram kenn mënu ko ko teree def waaye moom itamit mënul tere kenn mu donn mënul dàq kenn ñaareelu tomb bi mooy ne jabar ji su nekkee ne jëkkëram dafa génn àddina bàyyiwul bàyyiwul benn doom moo xam góor la moo xam jigéen la bàyyiwul itamit benn sët moo xam góor la moo xam jigéen la wante nag sët bu jógee sët bu soqee ko ci doomam bu góor jëkkër ji bàyyiwul benn doom moo xam góor la moo xam jigéen la bàyyiwul tamit benn sët moo xam góor la moo xam jigéen la waaye sët bu soqee ko ci doomam bu góor su nekkee ne jëkkër ji bàyyiwul lenn ci ñi ma wax jabar ji su boobaa dafay jël le quart des biens dafay jël ruboox day jël alal ji suñ ko xaajee ñeenti xaj dafay jël benn bi ki génn àddina nag su nekkee ne moom daf fi bàyyi ñaari jabar ñett wala ñeent su nekkee ne polygame la moom jabar yi kaar boobu dañ koy séddoo jabar yi dañuy séddoo kaar bi ci seen biir ci seen biir mais nag ñu ñu yemale ñoom ñëpp ñooy yem ku ci nekk li ngay am moom la sa morom di am kon jabar su sa jëkkër génnee àddina te sa jëkkër bàyyiwu fi doom bàyyiwu fi doom bu góor bàyyiwu fi doom bu jigéen bàyyiwu fi sët bu góor bàyyiwu fi sët bu jigéen boo xam ne si ñu ngi soqeekoo ci doomam bu góor yow jabar ji da jël le quart ñeenteelu xaaj bi ngay jël su nekkee da nga am ay wujj su nekkee ne yéen ay wujj ngeen ngeen séddoo ko su boobaa nag yéen ñëppay yem yéen ñëppay yem li ngeen di am. ñetteelu tomb bi su nekkee na jëkkër ji nag léegi bàyyi na fi doom même su dee benn sax moo xam góor la moo xam jigéen la wala mu bàyyi fi sët moo xam góor la wala moo xam jigéen la waaye sët bu soqee koo ci doomam bu góor ah su boobaa nag part bi dafay changer su boobaa yow jabar ji yow léegi su boobaa huitième ngay am sumun maanaam juróom ñetteel bi ngay am ndax doom yi mu fa bàyyee même su dee benn doom rek benn doom rek dangay jóge ci kaar dem ci huitième su doom amul waaye am na benn sët moom su dee benn sët rek moo xam góor la moo xam jigéen la bu soqee koo ci doomam bu góor su boobaa tamit part bi dafay dafay tuxu jóge ci kaar dem ci huitième kon ñetteelu tomb bi ngi noonu mbokk yi jabar su nekkee ne sa jëkkër bàyyi na fi doom wala sët sët bu soqeekoo ci doomam bu góor yow jabar ji huitième ngay am muy sumun su nekkee nag ne ay am ay wujj lañ dañ koy séddoo sumun boobu dañ koy séddoo ñoom ci seen biir à part égale ku ci nekk la ngay am moom la sa morom di am ku mbokk yi lii mooy situation jabar ci ndono audio bi fii lañ ko yemale comme ni ñu ko waxee woon rek ku nekk ak sa audio dina am audio yoo xam ne dina gàtt peut-être am na audio yoo xam ne dina xaw a gudd mais pour pour jabar moom mun nañ yemale fii ndaxte lii wax dëgg yàlla moom la ñu war a lenn sëkk pour euh, pour xam jabar naka lay munee doon ne jëkkëram bañ dajawaat fi incha allah ñu jàll ci jëkkër naka la jëkkër munee doon. yan condition yal nañ fi yàlla yóbbu jàmm subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahuma salli ala sayyidina muhammadin nabil ummiyi wa ala wa sahbihi wa sallim